femme booy jox tey financement du xaar jëkkëram ci dépense kër gi kon tey lu defuñu lu dul accompagner leen ci autonomisation financière loolu la président de la république woote plateforme bi nag loolu la ñëw pour renforcer moo tax ñu ne ndakaaru suñu yitte dinañu wër les coins et les recoins de di ñëw dina ngeen ñu gis ñu génn wookaam dem ci yeneen communes yi tey man maa ko commencé Serge Mali waroon na nekk gis ngeen ko ci salle bi femmes yoo xam ne ay femmes de valeur lañ lu ëpp 500 femmes ñu yàgg di ci liggéey ba tey at bi jot ñu ñëw pour dajji seen calebasse yi. Si nous avons jàppale nañu nous kër yi suñu nous ci femmes dinañu dem jeunes yi dinañ dem ci ASC yi regroupement tous les secteurs d'activité les industriels les marchés les commerçants nous allons dem seeti ji leen dinañu wax pour plateforme bii nga xamante ne lañ suñu